rond-point gàddaay ca géejawaay janoog géej gi bari na lu ñuy nemmeeku ay accident jamono ji loolee waral ñu daal di fiy doxantu ngir xam ana lu indi lu ni mel. bon man li ma jàpp mooy am na si xam ne nii fii quoi dandul miin euh, tracé bi fii quoi en même temps tamit bon am na signalisation mais xam naa ñoom du ñu sóoraale yi mais nag bu ñu li nga xam ne ni mooy solution bi li ma jàpp mooy ñu def fi benn pont. loolu mooy solution bi quoi bu fi defee pont daal moom yaakaar naa ne ak éclairage tamit xaw na am défaut tuuti mais ñi fiy def tonneau ñi fiy def kii yëpp accident yëpp dundul miin fii bu ñëwee ba fii du ñu miin dañuy ñëw ak alir bu ñëwee alir nag lay dootuñu mën a taxaw loolu waral accident yi quoi. waaw fii de moom dana am accident yu bari xam naa ne ñàkk guddi lay doon te xam naa ne guddi gi ñàkk leer la rond-point bi yaa na te lëndëm na ba guddee. chauffeur yi aussi war nañu daw ndànk. parce que fii nii tali bi yëpp amul lumière day lëndëm quoi chauffeur bu guddee ñu gis ak brise maire bi bu xasee timis jot rek bu layee ne du ñu gis quoi mooy waral souvent accident ak gars yi yéeg rond point bi même démb rek am na benn njaganjaay bu yéeg nii si kaw point bi fii demb rek nii la jógee côté Kër Massar dafa daw ba yéeg affaire bi ay 9 heures si guddi parce que tali bi du leer duñu gis quoi amuñu ay signalisation yu leer yoo xam ne rond point bi aussi ni ñu ko liggéeyee baaxul quoi. ñi fiy faral di xëy si wala sax di gontu si bokk na ci chauffeuru camion yi waaye itam ñi nga xamante ni dañu fiy jaay ñu ngi xamle ni accident yi li ko waral mooy ñàkkum leeraange ak itam ñàkk gi nga xamante ni ñàkk nañ ko taxawal foofu ab pont loolee waral accident yi di gën a bëri saa su ne. def naa ko rek bu ñëwee ba ci pont bi nii parce que normalement boo soo ñëwee bay jege kii bi am na ay genre kërë kërë yu muy def noonu ak ak ak tamit euh, am na benn tableau boo xam ne nii da lay waral yow lii. lii fi nga jëm nii rond point la nga sóoraale ko parce que ñoom du bu ñuy sóora bu ñuy dawal du ñu xoolaalee bu ñu doon xoolaalee tableau mais am na tableau tableau boo xam ni da lay wan ne yow lii fi nga jëm nii kat rond point la à cinquante mètres fii rond point la. waaw xale yi moom maa ngi def toujours bu ñu promé ma leen doon ñu dox ndànk bañ di daw di njëkkanteeg oto yi ndax fii moom wóor lu ñu am accident dafa bari moo tax. solution bi daal mooy mu am pont comme def nañu rond point bi mënuñu ko éliminer il faut mu am pont boo xam ne dafa traversé quoi oto yi di yëg di jàll quoi. expliqué nag ñi xam nga géej gi fii fi la boy footballé fi la ñuy entraîné fi la ñuy def lépp dañuy daw di traversé jéggi tali bi oto yi fii dañuy daw xam la accès de bi ñuy daw moo tax dañuy fel fan yi passé rek am na benn boy buñ ci bu fi des du kenn sax ay nit nit yoo xam ne oto yi ñoo leen rey quoi pour ñu traversé quoi et puis booy dañ du respecté point yi quoi traversé point yi ñu jël passerelle yi respecté ko dañuy jékki rek jéggi te fii dafa tàlli oto yi dañuy agsi ak alir dañ leen di laal quoi loolu mooy indi affaire bi quoi. ñàkk lumière bi tamit si la ñàkk lumière bi loolu tamit moom lu koy li mooy causé accident yi quoi mais en tout cas daal bu ñu fi defoon pont moom yaakaar naa ne bon accident yi dina dina wàññeeku quoi parce que tout le temps fii rek lay amee ah. fan yi sax gëj gëj naa gëj naa am accident mais moom moom pont pont daal laa yaakaar na moom moom mooy solution bi quoi waaw waaw pont daal moom mooy solution ah ñu leen a ñaan ñu dimbali ñu rek nu ñu nekk fii toujours ak suñu njaboot ñu dimbali ñu si leeraay defal ñu si ay lamp ba mu mën a gën a leer daal. góorgóorlu ci def ci lépp rek comme fii route nationale boo xam ne bi oto yëpp fi la ñuy jaar ñu def loolu quoi def ay lumière ak tout ça oto yi am fu ñu yéeg di wàcc loolu mooy quoi loolu daal la leen di ñaax quoi ñu def ko pont aussi on cee jàppale chauffeur yi. mën na leen dimbali muy jafe-jafe yoo xamante ni ñoom ña fare ca gox ba ñu ngi koy dund ndaxte néew na jamono ji bés yooy toog te doo dégg ay accident mu dem sax ba accident yi di lor ay doomi aadama ñu ciy jaare di ñàkk seen mbakkan ba tax na nag ñuy sàkku rekk ci gouvernement bi ñu taxawal fa ab pont waaye itam yokku leeraange bi foofee ca rompoint ba mbokk yi li moo nekkoon seen reportage du jour ñu leen di jox digg daje ëllëg incha allah ci beneeni gox waaye itamit ci beneeni sujet